alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina wa mawlana muhammad allahuma salli ala seydina muhammad nabiin umin allahuma salli ala seydina limaamulaay almahdiul muntazar ginnaaw bi ñu jullee ci sangu-sang yi maam baylaay lay salaam di euh, ziar bu baax a baax a baax sunu kilifa sunu wayjur sunu xalif général Duudu Maxtaar ibnu seydina manjoon saayibul kiram di julli ci sang bi di ñaan maam Duudu yàlla na fi yàgg yàlla na yàlla oyofal yan bi ci kawam ñi ngi ziar axlu bayti maam Baye Laay gi yëpp di leen nuyu yéen waa Cambérène di nuyu waa diaspora bi di nuyu àdduna bi yëpp di leen wax ne tey seen seeni doom seeni mbokk waa ACAPAC di ay doomu Cambérène ay conseils municipaux ay euh, acteurs de développement ay euh, waa société civile ak doomu Cambérène yëpp tey dañoo réunir ci benn euh, concept ñu tuddee ko ACAPAC ACAPAC bi nag Euh, dañoo seetlu ne Cambérène jot na doomu Cambérène yi regroupé wu boon benn ngir taxawu Cambérène donc ci synergie boobu la ñu créé groupe bii nii gis ne suñu premier action mën nañ ko porter ci la nga xamante ne lu faar la muy école bi donc bi ñu waxtaanee ci école bi ñu ne pourquoi pas ñu jëli Seydina Mandione école de vu que ne am na ay actions yi nga xamante ne ñu ngi am ci Seydina Issa ak Maam Babacar ñu ne nañ dem ci Seydina Mandione bi ñu demee Seydina Mandione jëm nañ recenser li fi am ak cg e bi ak comité des parents d'élèves ak ñëpp ba gis nañ ne daal mën nañ fa def benn action humanitaire ba nga xam ne 72 heures lay jël ñu si woo ñëpp nag action yi nan lay demee dañ fay dem euh, ànd ñu ñëpp ci dynamique boobu nga xamante ne ci la sang bi daan woo waa Cambérène dynamique boobu nga xam ne dañ daan toog rek dégg ñu ne waa dëkk bi ñu ngi leen di xaar ci jàkk ji bu ñu ñëwee mu nekk gestion participative bu ñu waree def dara kii dugal ci loxoom kii dugal ci loxoom kii dugal ci loxoom ci lañ leen di woo tey ñu bëgg a dem nag euh, semaine bii di ñëw à partir du 24 ak beneen bi ci topp ñu jël ko le trente le premier ak le 2 pour def fa benn action humanitaire di si woo ñëpp di woo bàjjenu gox yi di woo chef de quartier yi di woo euh, association sportive yi di woo bonne volonté yi ak acteur de développement bi di leen wax ne Cambérène lii ñuy def nii ñun lañ koy defal suñu bopp ñun ñëpp ñoo ko bokk te bëgg nañ ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp muy pentre bi muy maçon bi muy menuisier bi muy ku mu mënti doon mu ñëw fekk ñu si ñu jàppalante jàppale école bi relever défi bi ba relever éducation bi ci Cambérène donc loolu moom moo ñu fi andi tey di leen tàllal suñu loxo di leen euh, woo ci liggéey bi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim asbi allahu allahu akbar ñu nekk fii ak ñi ci diaspora bi yëpp di wax ne projet ACAPAT boobu dafa oo ñëpp ñëpp ni mu leen oowee mooy ñu ñun dem dimbali suñu njaboot taxawu sunu njaboot relever le défi de l'éducation à Cambérène ndax gis nañ ne dafa sooxe si dimbali boobu noonu mu nekk projet boo xam ne volontariat la jàppal ma jàpp ku am sa cent francs nga indi xeebuñu ko kaasu kafe kaasu ndox ku am saaku ciment ku am tonu ciment ak loo mënti am menuisier bi euh, électricien bi euh, pentre bi carreleur bi ñoom ñëpp soxla nañ leen ci jour boobu ndaxte ku ci amul koppar mën nga am sa doole joo xam ne ci journée boobu comme niñ ko waxee rek borom dëkk bi maam Seydou alayhi wasalaam noonu la ko daan defee ba mën a taxawal kër sur lu cadre boobu la ñu jo joge ci vision boobu la ñuy doxee ba nga xam ne ñun Cambérène ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp ak lëkkaloo si ak conseil municipaux yëpp ak képp kuy doomu Cambérène en partenariat avec la commune de Cambérène di ñaanal ñëpp jàmm yàlla yóbbu ñu si bés bi yëpp jàmm ñu daje si école Seydina Mame Mandione Laye waaw salaamaaleykum Menga je pense que wax na lépp Nafi suñu sœur aussi wax na lépp donc dañuy compléter rek par rapport rek défi bi nga xamante ni moo ñuy xaar Eh, ku ne xam ne éducation dafa nekk lu am solo ci dëkk daanaka boo nee dëkk éducation nga ci njëkk teg avant ngay wax leneen et eh, soo xoolee initiative li tax mu judd moom mooy que ñun ñëpp tey jii xam nañ ni àdduna bi communauté service dafa am solo communauté service moom mooy yow en tant que jeune lan nga mën a apporter sa sa dëkk waaye pas dëkk yi moom lu mu la mën a jox mais yow lan nga war a mën a jox sa dëkk te ñun aussi tamit Cambérène nous a tout donné donc en retour aussi bu ñu amee yenn initiative yu mel nii dañuy ñëw. apporter li nga xamante ni moom mooy suñu soutien à notre communauté et ñu ngi woo ñëpp nag ci li nga xamante ni moom mooy le 30 le premier et le euh, et le 2 aussi pour que ñu def une forte mobilisation ñëw man je ne suis pas un carreleur mais jour boobu damay caro du ma peintre mais jour boobu Nafi day peintre du ma du ma du ma plombier mais jour boobu Menga laay day nekk un plombier donc nga xamante ni benn travail en chaîne lay doon bu nga xamante ni ñun ñëpp daanaka ce sera un plaisir de se rencontrer dans un lieu bi nga xamante ku ci nekk apporter ce soutien ci keneen que pour que ñu mën a réussir li nga xam ne moom mooy les 72 heures de l'école Seydina Madione Laye donc ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo communauté bi ñëpp sans exception na ñëpp ñëw jour boobu foofu la ñuy ndekkee foofu la ñuy añee def fa genre camp naan ataaye liggéey euh, relever li nga xam ne mooy les 72 heures de Seydina Madione Laye donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di xaar incha allahu rabbi pour le travail bi nga xamante moom la war a def te moom la ñu war a réussir incha allah jërë ngeen jëf